rapport aux abris provisoires, madame, vous avez parfaitement raison. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire à mes camarades du SAM, nous sommes tellement sur des questions de survie des enseignants que des questions pédagogiques, que des questions d'école, vraiment reviennent en dernière ligne. Cela n'est pas acceptable. Mais encore une fois de plus, bon, peut-être le gouvernement nous aidera quand même à dépasser ces questions d'avancement, d'intégration haute, pour que nous puissions nous consacrer sur l'école sénégalaise parce que nous avons le temps de réfléchir pour cette école sénégalaise. Et en ce qui concerne les abris provisoires, je crois que le gouvernement déjà s'est inscrit dans un projet de, de, résorption des abris provisoires. Le projet, ça s'appelle Zéro Abri Provisoire. Je crois que c'est important aussi que le ministère de l'Éducation nationale puisse dire aux Sénégalais où il en est par rapport à ce projet-là qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui reste à faire. De toute façon, maintenant, pour répondre plus précisément à la question, mais à l'occasion de ces examens, il faut que les IF et les IA identifient au niveau de leur circonscription académique, mais là où il y a des abris provisoires, pour qu'on trouve d'autres locaux qui permettent une tenue, mais des examens dans la plus grande quiétude, dans la plus grande sérénité. Parce que personne ne devrait accepter que des élèves entament des épreuves dans les abris provisoires et que la pluie arrive et que tout cela soit perturbé. Je crois que c'est important qu'on alerte pour qu'on identifie déjà ces zones où il a des abris provisoires pour trouver des lieux de substitution pour les examens li nga xam ne moo jëm ci abri provisoire yi dëgg la xam nga ñun jàngalekat yi gouvernement bi def ñu mettre dans une situation boo xam ne presque suñu bopp rek lañu mën a xalaat parce que nag Euh, dañuy wax ni biir bu xiif mais du gis leneen lu dul xiif alors que dañ war a nekk des organisations yoo xam ne dañuy nekk dans la prospection dans la réflexion pour une école de la réussite pour tous mais li nga xam ne mooy abri provisoire yooyu dafay jot ministère de l'éducation aussi wax fan lañ ci tollu parce que comme ñoom am nañ un projet zéro abri provisoire mais il faut ñu wax ñu ci li nga xam ne moom la ñu fekk ñaata moo ci des ak diir ban la ñu mën a épuiser ces des abris provisoires ana nag li jëm ci examen yi inspection d'académie IEF yi il faut ñu identifier fan la mais abri provisoire nekk pour que ñu éviter dugal foofu ay xale ñuy def examen parce que nag bu dee nañ entamé seen i épreuve mais taw bi yegg si bu boobaa perturbation lay indi ñu jàpp ni il faut que il faudrait que ñu anticiper pour identifier fi nga xam ne fépp am na fa abri provisoire mais ñu substituer ces abris provisoires par d'autres lieux yoo xam ne dina mën a permettre à ce que xale yi def seen examen dans la plus grande